Biolite, une gamme complète de soins révélateurs d'éclat à la fleur d'hibiscus. Jini Jinière dal, moi suis New Year! 102.3, le nouveau son. bàjjan yow waroo seug yow askan bi nga bok duñ yob ben set muy hmm siggil na fi na fi sulaymane sa bay na fi Souleymane Nafi hmm sir anta sek ko jur anta sek nafi baye ko jur na fi eliman ak Xadijaaña bok nday ak bay na fi may sa nak na fi askan yu nga bok yow rek yaa ma la nga ñu ma sagal ma ma rafet njort lol ne sama dom ji tass sama inshallah na fi yalla bu yàlla tas yakar. nya ma lay jox sama dom ji xale bu ndaw la mm-hmm. xamul dara na fi doxul ba dedet na fi waxul ba dedet na fi foko fek mi ngi tok ben place te yalla bu yàlla tas yakar. lepp lu ngeen sumb mm-hmm. na ngeen ko sumando mo yow na fi sax nga xam yoonu sey yow manam yow lañ la lalal bi da nga wara rek tok yow dangaa doon lu baax sa bàjjen bi dafa bax ba egg ci lol te yow mam bo am wàlliw la alaf jaar fo xam bu len geureum xambu tal bi ki taxani toog ndax sama gor gi mo fi indi sayu ba tax ci li wañax na fi yow gor pire nga nak ma delu di lako waxat na fi lepp luy gor ma sha allah bu la deug la na fi may sa bàjjen bu am dara lo nakari ñaa denk na la na fi sha allah xamul luñ lay xamal toog tranquille wax tranquille def tranquille sëy mu baax li lañ la wax tubaat fa kàll macha allah nag li ngeen wax rek yàlla bu yàlla tas yaakaar gone nga nu andil nag dénk nga nu waaye yaaka dénk ku mat a dénk ji ah ak am fulla ak am fayda ku mën a yor këram da te xam na nu mu yoree këram kenn du ko ko waxal kenn du ko ko defal moom mii di na nag ah yàlla bu yàlla tas yaakaar su ñëwee rek te yem ci sëy rek te sëy rek tax ko jóg wallaahi dinañ xam ne yor nañ ko ndax dénk ngeen ko mët dénk gor si kuy dénk rek boo yegg si ci moom wallaahi di nga xam ne si lépp dëgg la macha allah sama doom it mhm. du des gannaaw macha allah sant yàlla bismillah bismillah mën a indi xéewal gi toogal fële mbaa xumboon na rek sant Murah? Ha? Bukan masalah, duduk lagi ni. Ha? Dah kono makanan dia ferek. Ulat, ulat, ulat, ulat. Yàlla jaar fa mu daan jaar. Allahumma amin. Yàlla jaar fa mu daan jaar. su ma cee am ya ju tas de. ndam lu ma ci daan am yàlla naa ci am lu ya ñaa am baal ma xëccal ma jërëjëf. yàlla bu yaakaar tas. amiin nekk leen mu rees ak jàmm. suma doom ji. teral bajani yi ñepp lan teraw teral man mi sax 100000 lan ma jox wayo ha da ngay gelu sa dom suleyman Binta legui la fi joge ban Binta ñaata Binta nga xam Binta yaayu nafi

bokkuñu sax duma ko bàyyi mu jege sama doom du fi am te guerre la bëgg dinañ ci dem maak moom. comme yéen ñaar yéen a jur na fi da war a toog waxtaan. te waxtaanu mag ak ivrogne boobu pour lan dama waxtaanul ak moom aw lu ma koy wax. c'est bon doy na. sama xel ci xaru va même au diable si tu veux et puis yow ku ma nga yow dinañ décevoir ba mu confiance mo taxone dugg ci couple bu amul confiance du dem yow war dem ci mariage Junior..!

mo formanté sama mémoire bi waxa waxa waxa wax bama dem man dama jek jek jékki sama bop ci bir xew bi nga bal ma ma ngi jégalu dotul am. je vais me coucher. yow sel sël. seeg tubaab daal metti na. waaye ñaareel yii amel nañ ma àq de amel nañ ma àq torop papa foofu moom xalaatuma fa deewu. mais foofu sa kër la soña. dëgg la papa mais yow essaye dama comprendre su ma la waxee lii ça veut dire que y a quelque chose su ma la waxee nii am sama raison moo tax ma wax la ko. ban raison léegi lan la la def. mais dafa soxo gu ko neex nga may def ay affaire yo xam ne doo ko mos imaginer dina mako def nga don def yow mënou sax comprendre papa. masuma ko fekke te masuma ko setlu ben yoon. ngok moy wane soxoram nak parce que devant toi ak fait ça seen vrai hypocrite nga man kasse la bañ da fay tok dima maltraité gu nekk mu wax ma ko gu nek imagine toi damay jël sama yére weer ko si bi mu jël ko sànni ko si suuf pour weer bosom à la fin j'étais même obligé jël sama yére yóbbu ko ci pressing sans compter nak rêve bi mu jël ko këpp ko si suuf moo ko mu jox mako ko. Sonia.

de toute façon on va a après on en reparle. Baba baax encore des problèmes. kojee ni lan mo tax ba duma la koj ma di la woo boobu ba léegi jëloo sa téléphone du tax mais naka la jëlee sama téléphone ak yëfu dof yi nga def yow ñëw ci kër ga di wax yan yëfu dof bëgg récupérer sama dom mooy yëfu dof ngeen jël ko sacrifier ko may ko pa, pas ah jouru mariage am le plus beau jour de sa vie mënuma ko sax partager ak sama dom. néna la nga may ma ma mocc Souleymane lan ngay mocc Souleymane Souleymane jël sama dom yóbbu ko ay année xaw ma sama doom ci li mu nekk ba tey jii may wax ak yow Souleymane bu xamul buur saay na ñu ne ko buur dee na xam nga lan laa bëgg sama adresse doom fu muy sëy laa bëgg nga jox ma ko. Ah, non non non ma jox la ko mooy dëkk bi tas na. ah dëkk bi tas na. man ma gis sama doom dëkk bi day tas. gis nga soo ma ko joxulee li xewoon 92.

répété ngeen ne lan. ah dégg nga yow. non dama waat ko. ah dégg nga ko waay. <laughs> non danga may faj yow ah ma. Mhm. bu suba. ah naa tàggu naa kër ñoo seet la. loolu nga wax. Ah. def fa sama xel. maa ngi jël ma. ah waaw dëgg ah, ci. na ngeen def. waaw waaw nga. waaw waaw ñëw naa. da def. sama copain la. ah sëñ bi na nga def. enchanté. gay la def noo tudd yow. Seck Ndaanaan. ah Seck Ndaanaan. Seck Seck Seck jàmm ana waa kër gi Seck. fan. mbokki hu wakaam wakaam ah, naka def na ana waa wakaam jàmm rek alhamdulilah barikal alhamdulilah yow lay liggéey wayaan wayaan kat la ah kat ngay liggéey ah, yow mën nga wayaan nii waaw noo koy defee sant bi. ko waxal beneen sant rek. saa mbay mbayaanoo ju. Eh, wuy ma posal jugal jugal. xam ah, nga bu foo koy àggalee fii balaa nga koy àggalee sa téléphone te jóg ñàkk a fayda géwal waayaan liggéey la ah? waayaan liggéey la. day am personnalité am fula am fayda am jom. di dafi leneen nga naan wayaan yoo xanaa ngente loo dem balaa ngaa wayaan nit ña ñibbi wayaan day liggéey xanaa yow balaa ngaa wayaan ba ba ba bu nit ñi palaan yi ngeen nooy def cim ay waay ay fifi yow demal ñàkk nga fayda torop jigéen bu amul choix ci yow laa ko sa moroom yëpp a ay boroomi oto ñu mën a wax ñu am xaa dimbali i baay ah sa doom ji bi laay moo ñàkk jom dégg ngay wax rek ah, nga ko mu fi indi ah. <laughs> looy liggéey mu ne oh, oh wayaan wayaan liggéey la ma dàq ko ca xaaj. yëpp wax fi man balaa may jekk ne ma fi indil jinne mu eh. xëy suba teel def. wax gi bari jaru ko. salaamaaleykum. maaleykum salaam. kumba na ngeen def xale yéen ngi am jàmm alhamdulilah eh, kuma sekk boo leen gisee jataay bi tey man maa leen woolu woon pour waxtaan ak yéen xam ngeen ni gan ñëw na ci kër gi te man maa fi indi ga xam ni xam ngeen ko sax dafa jaaduma présenté leen ko moo waraloon jataay bi mi ngi sama soxna la Nafi la tudd xam seen xam sama kër ni ma leen yare moo tax moom ma ñame ko jël indi ko ci biir kër gi ndax ku baax la ku yaru la ma bëgg nak yeen xalé yi jeyna na sukay ki ngeen bañ ko xolé bëtu morom ngeen xol ko bëtu tànta def ko ni ngeen def seen yaay Kumba nafimi, fi mi dama bëgg nga téye ko comme doom ji nga jur nga uuf ko ci biir kër gi waaw jaamu joju nak ma wolé ni tay man mom la bëgg سؤال de. eh suka eh jógal toppal sama bar. Masak. ça sa dom ji won nga ko defaraat de d'accord papa bay ag sibi. jërëjëf merci ñoo ngi jéggalu nag ci loolu def noonu day xale rek moo tax waaye yow suñu kilifa nga soo waxee dañ laa war a déglu te waxi boroom kër waaw la sant te li nga wax loolu la def bu neexee yàlla moom mii dinaa ko jàpp doom juma jur mu jàppe ma ni yaayam bu ko defee yow mii sunu borom kër li nga bëgg nga am ko jàmm am te loolu la ñuy def bu neexee yàlla li nga wax bu sooba yàlla kenn du ko teggi. maman bu dee ci man rek la jàmm war a jóge ma xam ne mën nga nelaw. Mhm. ndax ñëw ma fi pour wujjee ak yow. Mhm. dama fi ñëw pour toppatoo sama jëkkër. dëgg la. te duma la jàppee wujju. Mhm. dinaa la jàppee comme yaay juma jur. kon bu dee jàmm rek ngay wut encore une fois dina jóge ci man incha allah. incha allah jërëjëf. ah jërë ngeen def kontan naa bax baax Kumba li mom betu mon ci yow luma ma won xel la. jere <laughs> jërëjëf Seck kontaan naa bax way jere jere mais su koy na waxal ak mom de. wala man xalé yi yow la len baye wala <laughs> chopati no gisa jataay bi. ça va. ma luma la waxon de wala nga xam sa way egg ba këram. loolu tey nga galum <laughs> jàppante doolu ba léegi fifi sama togg dafay saf arom di xeeñ neex ah moo tax neex na ci sama yaay en tout cas doo ko bàyyi xale yi daal waaw maman maman papa war naa am gan mu dàq ko ni xaj ci biti xale bu bi depuis sànq mu may wurus naa ko sax décroché loo koy jëlee fi loo koy jëlee fii doo xool fi nga teg sa tànk sa pàpp moo yey dàq ko ci biti luy sab xëy mu ne wayaan wayaan googu la façon yor boppam yor la ci yow ah fii xool sa bopp baax garab su la sut du la may ker patoo làggoo sa lépp mat na nga ne wayaan moom nga fas yéene sa métier yow sa jëm bopp nga ne mu nga war a sëyal yoon ngaa ngokk moom laa bëgg moom laa bëgg voilà a toog nañ fii nga ne ma papa sama jardinier maam la woon nest pas kon papa war na xool affaire u ani problème bi <laughs> yow sa waaj ngay tëkkale sa papa sa papa ba muy liggéey sama papa fulla ak fay lañ gis ci moom ak njàmbaar gu mat sëkk ndax xam na li mu bëgg ak lu muy def mais kii looy li sa liggéey mu ne wayaan moom nga tëkkale sa papa yow yaa nelaw yow yaa nelaw sa papa dafa ñafé li ba am limu am tay mi ngi yor kenkaram gi di fak soxlam waye ki lu sobi ci mu ne waya yoon nga ko dama kon mama lolu moy sa xalat moy sama xalat d'accord tay ci sama nek dama la ñu yak agn tuti nga ba trop Wayo yaay, gis nga kii ma xawma ci dara. xaw ma ci dara laa ci xamul yow sonal nga ma sama bopp bi fi ne mi ngi métti di rëngi-rëngi sonn naa. yow sa jooy métti rek moo dinaa jooy déglu ma ma wax la laa la wax. yow war nañoo toog ci salle bi sa papa di wax nga ni jóg dem sa yoon. loolu jaar li ngeen ma wax daal moom ma ñorut. ah yow kii sa tante la. eh ah. yaay du sama tante de du sama dara na fi mii na xam ne xale bu ndaw man sax maa ko mag du sama tante de sekkuma ko sa ak moom bu ma waxaat sama tante la nag. xam nga lu ma leen di xamal damaa bëgg ngeen yaw wax naa leen ko. neenaa leen bàyyi leen sëy bi mën naa ko moom boroom dëj bi mën naa jooy dëjëm bàyyi leen maag sama yëf chaque jour ñu toroxal ma seen papa toroxal ma ngeen ciy teg seen bët sama xol bi jeex génn leen ci yéen lan la ah maay joué wala yéen ay joué ah lan ngay joué lan ngay def du joué ma ko sama papa moom naan xaw ma man maa arbitre lan ngay def du joué dama bëgg nga jóg nga defaru ñu fas yéene defanteeg xale bii man boo ko defulee dinaa ko def ndax man si match bi laa bokk yow nii rek nga nar a nekke ah lan la mu leen maa dimbali te régler ndax lii dal ma leen a dale ngir yàlla yonent bi dimbale leen ma sonn naa yërëm leen ma ah. yéen lan la surtout maa su koy mii. bàyyi ma kii ah. waaw baax na acca rek. ah, ah. <laughs> ah waaw moom tey ci sa ceeb ah. Fifi da nga mer Wa Zé Zé Zé wa tam li lan la tamit lek melni ko ko xamanteni mbali da ngay tour mbali da ngay lek lek nit lekk day civilisé ah coupé sama appétit bo amone appétit xana ñun ñu xaru am ko dugg am liberté provisoire jël ko Eh, man mbër laa waaye lekkat rek yow nag du lekk wala sa moom sa dër bi ma dàq tax nga mer. bàyyi jàmm nag bàyyi xale yi lekk. dama ko bëggal lu baax rek. Ah. dama ko man ak yow suñu jamono daawuñu def nii ah daan nañu dem maa di dem fu ne. ñemeñu kon sax nag ah, dëgg yàlla liggéey. Mm-hmm. man lu baax rek laa la bëggal de lu baax rek laa la bëggal góor day liggéey waaye looy liggéey mu ne wayaan ah man de sa sa man de man ak sa yaay sa nopp ci liggéey la ma xamoon. waaye léegi daal moom léegi daal sa njàmbaar ak sa fulla tax sa mbaay ki ma la mi ngi noonu loolu laa ko wax léegi waaye xale yi tey am nañ fit goo xam te ne doo leen mën a comprendre. ah déedéet man ma lay wax sa dëgg ngay mer. mu noonu. na la xiif rey. nekkul tamit nga ko ngay def. fekkee góor a tax ngay mer nii. ah déedéet tamit. lekk daan nag noppi nag ah. Sophia.

li ma fa dund ak li ma fa daan daj ngoog yow mii teg nga say bët ndax bi nga fa daan ñëw wax yu sew ak affaire yu sew yow nga daan def rek ngoog jeexal na wax mais soo toogee fii nga bëgg ma wax ay waxu delluwaate foofu danga may jaaxal. Sonia fii Sénégal nekk fi jigéen am fi teraanga beru yor sa appartement te marié goo dañ lay foo dëkku. Eh, eh, waaye nag eh, foofu. dama ne lu ma lay expliquer ci sama passé moo tax tu te permets nga toog fii di wax sa genre wax yi. calme-toi Sonia sa passé ba nga ma ko waxee ci laa ko gas suul dafa fekk sunu ànd bu sincère dafay lalu ci dëgg. dëgg nag su am di wax sama tante jooj ngeen ko war a wax ndax bu mu nekkee du yoon. <laughs> àdduna daa am lu ma jàng que waajur kenn du xeex ak moom sa papa defaral ko li mu bëgg nga dellu seen kër boo leen toogee nga jaarale ko ci ay sentiment. waaw ah, baax na en tout cas daal moom.

Deng, baik kok, ko foofu rek. waaye kok ko rek xool si lu mu ne. jaru ko Sonia li ñu lay wax yépp bëgg rek nga baax wax junne maa nga dégg ñu la koy waxal waaye dégguma dara gisuma dara dama gëmma toxlu sa xarit bi fi génn léegi li ngeen wax yëpp dégg naa ko Olof Njaay nag daan na wax naan fukki xarit yu la dul wax dëgg benn bu lay wax dëgg moo ko gën Sonia danga xam sa papa fee mu nekk nan la fa nekk danga xam ndax xiif na walla mar na danga xam si yenn coono la nekk te moo ne de lu mu liggéey rek yow la ko jox bëggul nga xiif bëggul nga mar bëggul nga rafle bëggul dara dara dara dara lu la metti sa papa yow yaay bekkanam fu mu nekk suba ba ngoon jot xelam si yow la ne sa mam bu góor gaañu na danga fay gis sa pap amul ay kayit moo tax ñëwul soo ñaa man bëgg naa gis sama doom sama doom bëgg naa gis waajurum bu jigéen waaye mënul ñëw man sa papa su may woo di ma la kalaame damay rus sax duma xam lan laa koy wax ak sa papa ni mu sonnee ci yow ak li muy def ci yow mu lay ñaan nga dëgër ba bëgg dee na doo ko ko may lenn da xamal naa la ko li mu lay ñaan soo ko ko nangulul billaahi du la jig wax naa la ko de bu la yóbboon na nga nangul ko ko mu nekk ngëneel ci yow.

Euh, compréhension boobu nag moom la soxla actuellement ak sa soutien waaw ak boo gisee ma jox la Nafi am na ay cousines yu ko yor walla rakk yu ko yor mais yow la sa jikko neex ma te rëccuwuma ko bi nga yore Nafi ba léegi ñëpp gis nañ ni mu mel ba mu mat sëy tey nga yóbbu ko mu sëy këram loolu nga def ci moom nag moom lay bañ yaayam ñëw yàq ko ndax ni mu waxee man keroog mosu ko waxee man puisque amul woon fit mais mooy wane ne il est déterminé n'est-ce pas bëgg nag ñu déggoo ci benn kàddu mooy bu mu xam fan la na fi bu ma ko sax teg bët. man mësuma ànd ci nii nga doxalee ak yaayu Nafi mais comme que dem nañ ba tollu fii man duma def lu dul topp sa ginnaaw rek waaye Souleymane bis bu Nafi xamee ni yaayam gaañuwul ah Souleymane. def loolu moo tane woon ne xam naa ne bu ma fa toogoon la ma doon daj foofu. man attan naa ko rey ndax tegoon na ma fa gàcc teg gàcc boo xam ne xajatuma woon fi ma dëkk ville ba ma nekkoon sax xajatuma fa woon mënuma ko woon wax doomu adama yépp di ñu waxtaanee foo tourner façon interprétation bu nekk ñu ngi ko doon wax ci moom mais duma bàyyi sama doom nag màgg ci atmosphère boobu ma bàyyi la ma fa am yépp sama liggéey teraanga yi ma fa amoon yëpp dellu si ak sama doom pour fàtte ko ah. fa ma toll woon la moo tax mais je sais que euh, Nafi xam naa ko xam naa ne bés bu yëgee lii duma ko pardonné ça moom je le sais. bàyyil xel ci li ma la wax nag. oh naa ci bàyyi xel t'inquiète pas. waaw kon baax na. waaw yemal ok. Prends soin de toi. Ok. BioLite, une gamme complète de soins révélateurs d'éclat à la fleur d'hibiscus. Vibe Radio, c'est surtout la musique qui cartonne. Yo Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. le nouveau son.